ban làmb nga mas sa gis ci àdduna. ñu jël ko tuddee ko Ousmane Sonko wala Bassirou Diomaye Faye. amul. Sénégal nag buy naqare di métti doo am xarit. Mm-hmm. waaye waxtu bu bëggee neex na ñëpp bëgg ñëw doon sab xarit. tolloon na jamono ci ginnaaw képp ku taxaw ci stade tudd fa Ousmane Sonko buñ la dëggulul saaga dañ lay dóor wala ñu nangu micro bi. loolu moom na jamono ci ginnaaw ku taxaw ci digg stade fa Bassirou Diomaye Faye ñu dóor la wala ñu nangu micro bi. Mm-hmm. ba ci événement yii di xew ci biir réew mi. Mm-hmm. buñ doxee tuuti ci ginnaaw boo fa masaana tudd Ousmane Sonko ñu nangu micro bi loolu dëgg la lan mooy yi tey jii suñu Babacar ñu dem ba si fii ay bakkan xeex ay bakkan des ay bakkan tëdd ci lalu hôpital ba gañe projet bu toll ni nga ñëw bëgg ñoo delloowaat ci ñàkk fayda gu jëmul fenn suñu projet bii nga xam ne moom lañ xeex ba egsi fii nga bëgg a jël nit ñi seenu liggéey ñu bëgg ñu jëlaat ko dégg delloo si làmb te làmb ji yéen démb ku toog ca stade ba tudd Bassirou Diomaye Faye ñu ne ko bëgg fi tuddaat wala ñu nangu bi Sonko noonu tey ngeen ne nag ñooñu ñu doon xeexal ba ay bakkan des si lañ leen fal dañ leen di geesu yéen système bu bon bii ñu doon dundee rek alalu askan wi ba jeexal ñu bañ jeex tàkk ñu ne diir tawaay au lieu que suñ Babacar boo lekkee suñu alal ba mu jeex xanaa nga la nga may ñu jàmm hmm. nga lekk suñu alal ba mu jeex ba noppi bëgg a jël ay arme di jàkkaarloo ngeen di tiire loolu lu ko gën a ñaaw mbër mu réussir nga gis mu génn di ko tontu dëgg la doo gis hmm. ay sagaru nit yoo xam ne ñooy nekk ci biir làmb di tappaleeka caaxaan ay tappale yu jëmul fenn di corrompre. yenn mbër yi àgg fee ñu may law cinquante mille wala deux cent mille nga naan may ma boo ma lijjantilee aw cent mille foofu ma dem ci promoteur bi fexe ba nga am combat ñii ñooy nekk di ci coow. gis nga même bu Birame su lay waxutoon sax. Uh-huh. avant lii avant élection yi. Hmm. jërë ngeen jëf ginnaaw bi leen nuyu ziar yi ñu fas yéene Mbel TV tey ñu dalal sëñ Abdou Khader Ndiaye war a waxtaan moom ci actualité. actualité nag xam naa ñu bëree bëri na leen jaaxal lool parce que euh, gis nañ fan yi passé ku mel ni Oustaz Modou Fall génn di dàgg sante ku mel ni Adamo coow li bëri woon loolu lépp nañ ci leeral ay leeral yu xamante ne ñooy faral di attaqué Birame Souleye Diop wala sax Birame Souleye Diop mi xam dañ ne attaqué lamp lépp nañ ci waxtaan joxe ci ay leeral yu am am solo dinañ waxtaan ci tolluwaayu réew mi Ousmane Sonko actuellement gis na ne moom euh, président Diomaye Faye ñu ngi commencé réew mi di wane ay suuf yoo xamante ni mi ngi commencé bett ñu bëree bëri ba ci dund gi ñu am yaakaar mu wàññeeku lépp nañ ci waxtaan dañ koy bàyyi yuñ ko ci waxtaan bi sëñ Abdou Khadi ñu ngi lay ziar. waaleykum salaam wa rahmatullah jërëjëf sëñ Babacar ñu ngi leen di delloo ziar yaa keke bi nga àndal yëpp di nuyu mboole mbokki réew mi waaye di nuyu mboole mbokki bitim réew di nuyu mboolem koo xam ne yaa ngi dégg suñu kàddu ci gàttal di tàmbalee suñu kàddu ci badaxte bi bismillahi rohi bi tarat ilaa kasfi asrarin bi baatinihim tawat wax yaa ilaahi muhammadin baxdi yaa xayu wa rahmatullah. am na solo sunu toogaayu tey xam naa dina jëriñ askan bi parce que dañoo gis loo xam te ni commencé dugg ci réew mi. loo xam te mi ngi commencé am ay changement ci réew mi lu mel ni mbirum làmb bi xam te ne suñu culture la ñu gis euh, ay yenn ki yéen ñi xam ne dégg nañ leen ay buum ci réew mi ku mel ni Birame Souleye Diop ak keneen ak keneen parce que gis nañ euh, ki nekk Tëngéej am na lu mu wax mais point bi ñu ci gën a bëgg a waxtaan mooy Birame Souleye Diop Birame Souleye Diop dafa génn mu ne bu ko kenn tuddee football ne làmb ak yeneen ak yeneen mer nañ ba fut jóg nañ joxoñ nañ ko baaraamu tuuma wax nañ ak moom mu metti leen lool nag nga gisee lool. waaw jërëjëf sëñ Babacar xam nga nag euh, dadi mooy li ma yàgg di wax. Mhm. biteel bu ne la def rek. Mhm. la sañ ba di xëy. dëgg la. bëri koy gis mu yàq nit. Mhm. lim xam. dina ci moom lay génn ci làmmiñam rek. dëgg la. waaye dama yàgg di wax ne sëñ Babacar làmb. làmb. ci jëmmi boppam. moo laaj liggéeyaat bu yaatu. moo laaj liggéeyaat. Birame Souleye ni mu waxee nag. Mhm. du caag ne dañuy ñëw pour jëlee fi làmb. Ah, jëlewu fi làmb. déedéet moo tax wax am na solo. Mhm. waaye dégg fexe ba am dégg-dégg Sénégalais yi amuñ problème mu wax waaye problème mu am dégg-dégg ci la nit ki wax moo la def. dëgg la. da ngay wax ba noppi. ñu xool moom leen soree ñu analyser ko moom. Biram Souleye ci dëgg la nekk. Biram Souleye ci dëgg la nekk. ci dëgg ju wóor mais waa lam jóg commence song Biram Souleye ne li muy wax du noonu parce que millions yi dafa war dugg ci lam ji yow nga taxaw nga ne Biram Souleye ci dëgg la nekk. xam nga lu la xamal ne ci dëgg la nekk. Hmm. lamb la attaqué. lamb te lamb du kër gu tuuti. dëgg la. <laughs> ku ko attaqué rek attaqué nga kër gu rëy. Hmm. ana ban mbër mu réussir nga gis mu génn di ko tontu. dëgg la. doo gis. Hmm. ay sagadu nit yoo xam ne. ñooy nekk ci biir làmb di tappale ka caaxaan ay tappale yu jëmul fenn mhm. di koromp mhm. yenn mbër yi àgg fee may law cinquante mille wala deux cent mille nga naan may ma boo ma lijjantilee aw cent mille foofu ma dem ci promoteur bi fexe ba nga am combat ñii ñooy nekk di ci coow maam maam ñii ñii dunguru daal suñ nga même biram su lay waxutoon sax mhm. avant lii avant élection yi ban ban làmb nga ma a gis ci àdduna ñu jël ko tuddee ko Ousmane Sonko wala Bassirou Diomaye Faye amul Sénégal nag booy naqari doo am buy naqari di métti doo am xarit waaye mm. waxtu bu bëggee neex na ñett bëgg ñëw doon sab xarit mm. tolloon na jamono ci ginnaaw képp ku taxaw ci stade tudd fa Ousmane Sonko buñ la dëgglu saaga dañ lay dóor wala ñu nangu micro bi loolu moom dëgg la tolloon na jamono ci ginnaaw ku taxaw ci digg stade tudd fa Bassirou Diomaye Faye ñu dóor la wala ñu nangu micro bi mm. ba ci événement buñ doxee tuuti ci ginnaaw boo fa masaana tudd Ousmane Sonko ñu nangu micro bi. loolu dëgg la lan mooy nday tey jii suñu Babacar ñu dem ba si fii ay bakkan xeex ay bakkan des si ay bakkan tëdd jëlal lan hôpital ba gañe projet bu toll ni nga ñëw bëgg ñoo delloowaat ci ñàkk fayda bu jëmul fenn suñu projet bii nga xam ne moom lañ xeex ba egsi fii nga bëgg a jël nit ñi seenu liggéey ñu bëgg ñu jëlaat ko dégg ba ëllëg si làmb te làmb ji yéen démb ku toog ca istade tudd Bassirou Diomaye Faye ñu ne ko bëgg fi tuddaat wala ñu micro bi Sonko noonu tey mu neex ngeen ne nag ñooñu ñu doon xeexal leen fal dañ leen di geesu yéen. di jël millions yi ñu bëri dañoo jàpp ne millions yi askan bi xam te ne ci kees gi la bokk ñëpp war kaa séddoo dañoo bëgg di ko jox ay ñenn ñi ndax loolu jaat na aussi. loolu am sëñ Babacar yàlla xam na ne ñi sonn si làmb dëgg tekkiwuñ ca làmb ñi sonn tekkiwuñ ci làmb. ñi sonn dëgg ci làmb tegal sa baaraam foofu foofu fa ñu yaatal ko lu baax a baax pour askan bi mën a comprendre parce que ñu bëri dañoo jàpp ne Birame Souleye Diop ci ay euh, yoo xam dafay yàq la nekk mais balaa ma ciy ñëw dafa am mbirum seet booy def parce que war na waxtaan ci oustaz Modou Fall ak yeneen yoo xam te ne lépp war naa leer pour gars yi comprendre yan dil moo ne ci suuf yan façon seet ngay seet ba askan bi ñu baree bëri koo wax seet rek mo woo Serigne Abdoul ndax sëriñ bu ñu bokk mecc mi bu si sa nopp tàbb bu tàbbee bu kàdd gi tàbbee sa nopp mhm. dana la jaaxal mhm. waaye maa ci man ku ne li tax ma man ci kone ne nag lu simple la mhm. man sëñ baabakat dama teel a seet ndax dama dama dama dondu jàngi dëgg la sëñ Babacar damay seet ci bant damay seet ci suuf man naa la ci wax lu kenn dul dindi man personne maa nga mas a dégg ma jug ne la tibbal tànku nit andil ma ko ma seetal ko jërum nga wax turam ak tur yaay. tànku nitam rek. tànku nit kese. sëñ Babacar sagaru nit wu dugg ci yaramu nit ki. Mhm. ñaxam rek fu mu tàbbi am montoram la wala dàllam wala kawasam yàlla seede na ne indil ma ko ma seetal ko wax la lépp lu ne ci moom boo bëggee bu fekkee dundutul ma wax la ne la dee na ak fu ko yàlla si teg. Mhm. sëñ Babacar. Mhm. loolu sax day dugg ci te yaakaar naa nit ñi soxlawu ñoo xam loolu. dëgg la waaye li nit ñi soxlaa xam mooy seen mbiri àdduna. Mm-hmm. képp kuñ jot ci yow yii ma wax saw kawas saw dàll sa mbaxana wala sa mantur buñ jotut ci yow wooteel foo mën a nekk ci àdduna sa tur ak sa tur yaay bu ñu ko amee daal bi nga ñëw ci àdduna sa date de mm-hmm. dinaa ne wax sa jëmm lu la sëriñ musuta wax mën a doxaate mm-hmm. li nga romb te jàpp nag sëriñ musu koo tudd boo ñëwee ma tuddal la ko li nga romb di nga nëbb boo ko wax la fi nga toll. amul leen loo ci nëbb. déedéet li sa kanam dama la koy wax sëñ Babacar bu fekkee da ngay fan sax ba yegg see fii ma leeral la ko na la ko daaj mu leer ci am solo kon ngeen dégg ko bu baax kooku mooy sëñ Abdou Khare Ndiaye moom yaakaar naa kenn du ko présenté fii ci Sénégal parce que ñu bëri xam nañ ko bu baax a baax sànq yaay nekkoon ci point bu am solo mu nekk ñu bëri ñi xam te ne danoo bàyyi woon Ousmane Sonko jàpp ne du mës a jiite mi mu dem ba neex ñëpp bëgg ko joxaat nopp gis nañ ñu bëri daan toog ci plateau yi di ko joxoñ baaraam ne dafay yàq askan bi dafay yàq réew mi tey ñoo ñoo commencé waat di ko tàgg sëñ Babacar. Mhm. xeex bi dañ cee sonn. dëgg la. ba nga ma xamee ba tey. Mhm. ak ku ma mas a gis ku ma mas a dégg. Mhm. mbaxana bu mel nii dafa maa ngi door a sol ci àdduna. dëgg la. ndeysaan keroog bi ñu gañee procès bi. sama waa ñoo ma njëkk wax pour lan mbaxana bi. man léegi ñoo yor réew mi. <laughs> dëgg dem ci guy ga yéeg ak a wàcc. dañoo yàq na yaakaar na dama koy def ci hasard. dëgg la. nañ dellu ci ginnaaw. sëñ Babacar projet bi dañ cee sonn lool. mais guy googu ñu bëri neen affaire xërëm la parce que dañuy gis parfois doo fa nangoo dugal xale ay kilif rek nga fay dugal. wallaahi yàlla ñu may dégg. Mhm. su ma dundee ci àdduna. ba dara mhm. dund ci xërëm ñaan naa yàlla dama rey ci jant boobu te tàbbal ma sawar. macha allah mboolem lu ma jaamoon yàlla na ko yàlla may ko ko sopp. Mhm. sëñ Babacar man bañ naa ko ba mbob ruus bi ma ñu bëri xamee. moo yow jàkkaarloo nga ak mhm. lu ciy nekk di nuru pettaaw du pettaaw téere yu xonk cor la lépp ay tur yàlla ak alxuraan ko fees. Mhm. pettaaw sax du ko ci def. dëgg la. sëñ Babacar. Mhm. nee naa la man damaa ñëw pour nërmeel xëram. ñi nekk di liggéey xam-xam bu ñuul ci côté samp ak yooyu. ma wan leen na li ngeen nekk manees na koo amee ci alxuraan ci yoonu légal wu leer. te bu ëllëgee àjjana doo nga la cay fekk. macha allah. waaye sëñ Babacar. suñ projet bii gars bu ñu dañ cee sonn mhm. ñi nga xam ne bi muy metti ci ginnaaw nanguwuñ woon turu Ousmane Sonko ñu ngaa ko ci benn micro ngal nañ ñu may jàmm ñu liggéey te yàlla tax nanu may jàmmee dafa mel nag ñu ba dañ ne patriote yi parfois dañuy xaw a euh, indi ay wax yoo xam te parce que toog muy dox ñu ne dañ koy ci réew mi toog muy dox ndax mën naa jóge ci réew mi ko njëkk dàq mhm. jaarle ko ci bi sallallahu alayhi wa sallam moo jaarle ko mhm. toog muy dox yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ci gënoon a jekk ñëpp te jaar te def ko la sëñ Babacar. Mm-hmm. yonent bi daa xare ba daal. ba daal bu ko neexoon jaaxaan ci digg lalam. Mm-hmm. di yebal gaa yi ñuy dem di xare. Mm-hmm. te da dem ba jeex nag ba am ci màndarga. suñ jàmbaar bi mujj ji fi jóge bu yàggul sëriñ Tuubaa. sëñ Babacar toog muy dox moo si gënoon a jekk ñépp dëgg la. te daa bàyyi gaa yi fii. mu dem xeex. ba tey mu indil ñu ndam lu rëy lii mm-hmm. tey foo dem ci àdduna na xaadimu rasul leetar boo fa bàyyi ñu jël indil sëñ Tuubaa kon ñii ma wax ñoo fi njëkk jëlee toog muy dox nit ñi nag Sénégal dañoo xamul toog muy dox ak toog di doxal bokkuñ dëgg la toog di doxal daa am loolu nag mën na nekk mm-hmm. ndax président Bassirou Diomaye Faye ci toog di doxal la nekk dëgg la kilifa yu bari fii ci toog di doxal lañ nekk mm-hmm. waaye bokkut ak nag toog muy dox dégg naa ñuy tooñ ku mel ne oustaz Modou Fall oustaz Modou toogul muy dox de. ah mais moom moo taxaw ne moom day tëdd muy dox toog muy dox xaw ma nag gars yi dañ ko sonal di wax loolu moom nekk kii woon teg yooyu da uh-huh. moo bëgg yooyu. kalaas mm-hmm. yooyu ñu koy def mu yooyu moom mooy waaye kay wutoo dara teefe. Mm-hmm. kon képp koo gis muy dem ci télé di xëy wàcc dem ci projet di xëy wàcc ngi liggéey. yaa ngi liggéey. doo muy dox est-ce que am na ci dëkk bi daal laa lam lam ji daal mu am toog muy dox moom foofu uh-huh. te day jeex te day jeex ba tey jii ñu gis ne mbirum kaaraange am nga loo ci liggéey gis nañ ni kilifa yi ba doon koy faral jël ci yow parfois ñu ñëw def ak émission fekk du am mu nekk ak ndombo goo xam ne gaw yi bëri na waaye ñu ngi ko tuddee ak ndombo yëngu leen euh, ndomb moom dama cee spécial génn naa ndomb ak yëngule ba mhm. ci àdduna mhm. mooy borom quinze yi am seetu ya xaalis dëgg la alal ak bayra doo nga taxoon ma liggéey ko ànd ak kaaraange dëgg la ma ñëwaat tey indi ndomb ak jugleen mhm. di ndomb goo xam ne nag sëñ Babacar vingt téere la macha allah vingt téere la ak téere bukki bii ci nekk muy vingt et ci lan lay dox kii nag sëñ Babacar ay su ma ko waxtaanee noppi sama téléphone bi du yàndoor mhm. wax naa ba tàyyi du ndomba gu may jël nii rek di jaay sëñ Babacar kii samp la dañ koy tuuraat gàtt mhm. day ànd ak jaaro day ànd ak sangat samp lay doon boo xam ne bu ñu ko liggéeyee nit ki ci àdduna wallaahi foo mën a nekk ci àdduna buñ la ko joxee waa bitim réew ndax mën nañ cee jot bañ a ñoo ëpp luñ koy liggéey sax ndax njëgu kër laa koy weccee. Mm-hmm. sëñ Babacar kii bu ma ko liggéeyee la nit ki ba noppi. Mm-hmm. dañuy soxla tur nit ki tur yaayam date ni naissance moom la ñuy jël tëgg ci xawaati mi ñu ciy liggéey noppi def leen li ci jaarul leen li nag ay sangat lay doon yoo xam ne day toog ne lay xaar jaara boobu buñ noppee def ko ci kaasu weer yooyu ñuy faral di gis yóbbu ko ci guy ga samp ko mu def fa juróom-ñaari fan. Mm-hmm. ñu yóbbu gàtt ba tuur ko fa comme sarax. sacrifice de la. mu suulu fa juróom-ñaari fan sëñ Babacar bu ko fa defee ñu dem jëli jaar bi indi bi ñu bu ñu jëlee jaar bi indi boole koog yi muy àndal jaaro boobu moom lañ jox nit ki mu takk boole koog ndomb gi fu mu nekk jaar na mbooloo dana topp ci ginnaaw neex na xaj macha allah yàlla bu mu doon ko jiite entreprise wala muy musicien jàngkatu xasida bala politicien bala sëñ Babacar fu mu nekk ci àdduna mbooloo danañ topp ci ginnaaw te sëñ Babacar ndombale goo xam ne nee naa képp ku ñu ko liggéeyal jaar ci samp bi yoon wi ñu war a jaar yëpp ba jox la ko mhm. wallaahi neex naqari daañu la dégg ci alal. macha allah famille boo bokk da nga tiim ñëpp ci alal xam nga lu ci dàqati. Mhm. ndomba la goo xam ne dama ne ku mu nekk sa ndigg keroog bi mu nekkee doom joo juróoti bu ko neexee jëlul mooy takk gàllaaj. macha allah afaan nag waxuma ko de dama ne keroog bi ma la ko joxee liggéey samp ba noppi ndomba gi ba mu takkee sa ndigg doom joo juróoti bu la neexee jëlul mooy takk gàllaaj day tekki day réussir te kenn du ko jëm ci moom dara ba man ko te sëñ Babacar ku mu nekk sa ndigg ku tibb sa tànk yàqu nit du la sànni loo egg si sa kaw. macha allah am na am na solo numbag jugleen gi bi nga ko waxee dafa am benn téere boo xam ne yaa ngi ko faral di joxe mu nekk ay gaw yoo xamante ni sengoor bu ruus la ñu bëri xam na ni ci mbirum rab lay dox ñiy tiit guddi ak ñi xam ne rab daf leen a jàpp ak ñi bëgg a sëy mënunoo sëy lépp daf ciy dox pour nga présenter ko askan bi. rab maa ci man ñëpp téere bii nit ñi xàmmee ne ko suñu Babacar kii da ko waroon a tàllal nii rek nit ñi gis ko ñu suñ Babacar ñi nga xam ne dañoo problème rab mhm. rab baaxul tas na dëkk bi mhm. am na ñoo xam ne suñ Babacar ñi ngi Europe di liggéey bañ tukkee kenn xamul kañ la dëgg la mbooleem lu ñu liggéey mi ngi naax saay mënuñoo dajale dara liggéey ren ba déwén toog sa néeg ba mu yàgg nga ne na sama liggéeyam daaw man ne mi ngi nii moo leen def am na ñoo xam ne vingt temps def nañ ko Europe te mënuñoo dajale dara lu ñu yor mu dem lu ñu yor mu seey ni ngelaw mhm. sëñ Babacar am na ñu ne ci biir kër yi tamit yor àdduna la ci biiram njaboota leen të. taraba leen ko teg. dëgg la. waaye am na ñu yor seeni sagar di wareelu fii ci mbedd mi doon ay ndox taraba leen ko teg. sëñ Babacar am na ñuy dugg ci biir sàll bee yor ay savon di fooyee seen bopp masturbation. Mhm. taraba leen ko yóbbee. Mhm. moo gën a bon ci àdduna ku koy def bàyyi. masturbation. li muy yàq ci yaramu doomu aadama ku ko xamoon. sëñ Babacar dañ ko gaaw faj. day yàq jëmmi yaramu doomu aadama lay yàq rek ci gàttal. Mm-hmm. day lëndëmal ay bët gis-gisu bët. Mm-hmm. masturbation da koy lëndëmal. Mm-hmm. day rey si ditu nit ki mboolem luy sofey tànk sofey yax yi nekk ci yaramam yépp daf koy funuxal. dëgg la moo tax ku koy def day gaaw a màggat. day gaaw a màggat. sëñ Babacar téere bi nag yow mi amee rab. buñ la ko joxee ba nga def ko sa digg def sa digg sax daa ëpp. dama ne téere bi néeg bu mu nekk sax rab bu ko seen dee. waaye léegi yow mi ko takk noo war a mel. macha allah kon yow mi bëgg noppale ci côté rab kaay ma jox la téere bi rek nga takk da nga ko moom ba ilaa yawmi diin doo gisati lu la war di yàqal. même ku am jëkkër. ñëpp ci yam mhm. bàyyi allah am solo loolu mooy téere rab bi ñu bari xam naa ko mais dafa am benn pommade boo xam te nii pommade bu ndaw la mais njëriñ bi mu am solo. làbbali làbbali njëriñ bi moo am solo. askan bi ñu baree bari ñu ngi am problème mu ngóor jooytu nañ ko fu nekk mais mën noo wér lan nga see liggéey. waa sëñ Babacar kii mooy pommade làbbali. pommade làbbali. pommade la boo xam ne nag ñi ko tax a jóg mooy ñi nga xam ne seen awra dañoo fooy seen bopp fooy seen bopp wala fooywul seen bopp sax ba seen awra gàtt dem ba dugg pommade bi daf koy génnewaat mu mu gudd. Mhm. ñaari foo leen fekkee seen awra day dem ba sew ruuj ne bant soosu. Mhm. pommade bi da ko bu ko dee utiliser da koy génnewaat day ubbiwaat awra bi da koy di jël. askan bi am na ñuy far laaj benn point ci côté boobu parce que dañuy far di wax naan yéen awra bi ngeen di yokk wala siddit yi yi xam moo ci nekkoon mooy dem ba dee bu ngeen ko frottee mooy jógaat ñaar ban la ci. ñaar yëpp la am. waaye nag ma tuuti foofu. Mhm. sëñ Babacar. képp ku la damay yokk awra. te garab gam koy defee amul effet secondaire gëm ma weddiwu ma nag. Mhm. waaye man gisaguma ko te yàgg naa ci xam-xam lool. macha allah weddiwu mhm. waaye gisaguma ko te yàgg naa ci xam-xam lool. lan mooy effet seconde waaw mooy garab boo xam ne tey boo ko utilisé. bu ñu mhm. la day dijjal sa tànk bi wala day dijjal sa awra bi wala day dijjal sa baaraam bi wala sa fes yi lay dijjal. foo ko fekk rek dana am jeexitu jàngoro ju mu fay bàyyi. macha allah loolu mooy effet secondaire. mooy lem lay fajal. man mhm. na laa yàqal lu ko ëpp wala lu ne toll. Mhm. loolu nag yaakaar naa taxul nit di faj. su fekkee bii nag. waaw pommade bii nag sëñ Babacar day génnewaat. dafay génne. Mhm. dana gën a guddalaat ndax si di foo fekk kooku si di tam nee naa day lem. day lem bu si di di génnaatee nag awra bi day génn tàlliwaat. maanaam bu si di génnee day commencé màggaat continuer màggam. ñu bëri nag loolu la ñuy jàpp awra bu gën a gudd yooyu te fekk déedéet. dimension bi nga xam ne moom la sàkkara doomaa dama war a am mm-hmm. lu si bëree bëri bu nit ki dee fooyee boppam mm-hmm. wala boog mu amee àndaal rab bu ko yóbbu ci néew kàttan goo xam ne ci tële la ko jëmee lu muy gën a dem si di day lem mm-hmm. awra bi gën a gàtt pommade bi nag da koy génn génnewaat te xam nga lu ci dàq pommade la boo xam ne boo ko laalee da ngay sëy ba soxol sedd guyi ci guddi googu du la yàq yàqal dara déedéet te boo ko toppee traitement bi ba mat sëkk. laal ko 15 ci kàttal yàlla sa xawra dana dellusiwaat ne awra yi 18 mhm. am na solo ginnaaw bi ñu jógee ci nag bëggoon naa sax ñu dugg ci mbirum làmb mais mbirum làmb balaa ñu ci dugg dafa am askan bi loo xam ne fi leen sonal ngi koy wër fu nekk fu nekk fu nekk mooy ndoxum siti hémorroïde ak jàngoro yu mel ni ñoom am na ay sosé yu doon joxe mooy sosé yoo xam ne ñëpp xamuñu ko ci yow ana sosé yi. Euh, sëñ Babacar Seti. seede naa ko ci yàlla ak alquran damaa waat de. dara mhm. ma jekkas ne sëñ Babacar. seede naa ko ci yàlla ak alquran gisaguma ci àdduna ku ma ci mëntu. te sëriñ bu mu neex nag wala docteur bu mu neex. Mhm. bu la nga sànni say garab ñëw ma jox la nga essayé boo gisee comme dal sa biir kër. Mhm. jox ko mu essayé bu xëyee def ngay këppi say bët di xool. sëñ Babacar Sy maa ci man ku ne ak ay murit. macha allah. te benn sase du ma ko romb ak yow de. benn rek. wallaahi kon boo ko ñuy joxe ay 5 6 yooy yow gis naa bu yàggut koo xam ne mooy butéel 5 litres yi ñuy jaay ndox bu neex. Mhm. ñett la ci dajale ne moom lañ ko jox pour traitement ma ne ko lu mu la wax ne traitement moom la ji de mooy 3 mois. 3 mois day yàgg. ndoxu siti nu ko nit di fajee 3 mois 1 mois ci ndoxu siti sax fan la am. Mhm. ndox siti ñi nga xam ne dafa chronique ci ñoom laa de. Mhm. man ngëm ngaa yàggum faj douze jours ma noppeeg yow. douze genn wàll doomu aadama yi nag ci set jours doomu laa yem ak yow. macha allah sept jours mu dañ ci yow ba set. Mhm. garab gii ma la jox bu dee émorite bi ci biir la dina def ballonnement ak seere baaxut ku ko am teel ko faj. Mhm. émorite bii ñuy xeeb Sénégalais yi di ko xeeb mi nga rey lu bëri. macha allah ko wedd nga dem ci kër docteur yi nga laaj bu yàggul doomu gis naa sëriñu daara bu mbay. boo xam ne da ko doon def seera mooy toog diir bu yàgg di dem wanag mhm. loolu day dem ba day yàq sa butit yi mën na dem ba jural la feebar fois man na dem ba jural la prostate macha allah te hémorroïde boo gis mooy dem ba jur colon colon boo gis it mën naa dem ba jural la néew kàttan goo xam ne tële mën na ca àgg mhm. waaye lu mu ci mën di doon daal hémorroïde bi ci biir ak bi ci bitti boo ñëwee ak ndoxum siti bu mu ci mën di doon ci sept jours boo jëlee vint quatre heures boo gisu sa bopp bu laa dara garab gi baaxut mhm. vingt-quatre boo gisu sa bopp 24h garab war naa delloo sa jàngoro ginnaaw. macha allah boo ko gisul bul àggale. boo ko gisul bul yeggale mu am solo mais am na ay fas yoo xam te askan bi nag mii nan ko ci yow parce que damaa bëgg léegi ñu dugg ci mbirum làmb mën a continuer jotaay bi tuuti pour tëj ko mais fas yooyu ci lan lay dox. Euh, jërëjëf euh, sëñ Babacar lii moom samay cosaan la. Mhm. maa ngi sant sama maam ju baax. di ñu wax maam Serigne Dieng. Mhm. di ko ñaanal yàlla mu dolli ko yërmande ak njéggal fa mu tëdd. Mhm. lu bari si xam yi maam tegtal ci moom laa ko jëlee. waaye sëñ Babacar kii fas la yoo xam ne képp ku mu nekk sa ndigg keroog bi mu nekkee sa ndigg lan laa muy noppee man ceew dara. moo xam cat ak lu mu mën a doon. keroog bi mu noppee sa ndigg it sëñ Babacar la bët noppee man ceew dara. Mhm. fu la neex taxawal fu la neex doxal lu la neex solal na dagan rek. bët ak làmmiñ mënul ci yow dara li des sa dund waaye fas la goo xam ne sëñ Babacar kii képp kum nekk sa ndigg <laughs> ñam wuñ la jox ak fuñ la ko mën a joxee lekkal buñ la joxee ñamu bon sax nag bu dee wuñ posen bu lay jub di këpp dëgg la bu këppuwul nag bu egsee lekkal xamal na yàlla tojal na la secret ba bu yàgg <laughs> naan buñ la mën a jox fas gii li fekk mi ngi sa ndigg fuñ la ko mën a joxee ci àdduna sëñ Babacar bu fekkee dugg nga ci kër yi ñëpp yi daw naa bu mhm. kenn lekk ñoom bu kenn naan ci ñoom wallaahi boo làmbee fas gi mu ne seen digg rek duggal lekk naan ba màndi mhm. waaye fas a ngi nii goo xam ne sëñ Babacar képp kum nekk seen digg jàngoroy biir du la sonal du la rayit déedéet lu lay ray de waaye du doon jàngoroy biir du émurit du biir buy metti du dara mhm. waaye sëñ fas a nii goo xam ne képp kum nekk seen digg jamono ba mu nekkee seen digg foo dëgg sa tànk koo ko bu yàqu ah am na solo macha allah askan bi nag ñu baree bari bu ñu génnee àddina ñu bëri danañ cat mu leen rey kon boog fas gi ngi noonu képp koo xam solo nga mën nga woote numéro nekk ci suuf mais fi ñuy tëjee débat bi mooy tey jii nii euh, bu ñu waxee bu kenn tuddee euh, politiciens yi euh, ci fi nekk jamono bi combat ndax mbër yu mag yi doon am problème ci millions yi doon encaissé ci benn ngoon. du moo doon jàppale Amadou moom la Amadou ba doon jàppale. waaw moom moo wëlbatikuwaat di jàppale Amadou ba ay noonu dong la ko yokkal. gis nga politique sëñ Babacar bii ñu génn nii. Mhm. politique bu bon bi ñu génn. Mhm. waxuma la làmb sax waaye fi mu doon yóbbu réew mi moo baaxut. dëgg la yow imaginel politicien. Mhm. boo xam ne dañ ne yow ab jullit boo demee ba yow nga dem sukk ci sëriñ di nuyoo sax ñu mere la ba mere waale sëriñ bi. dëgg la di la recevoir donc. amaana sax ab taalibeem nga. yaa lu waral loolu. lan moo ko waral. mooy li ma wax sëñ Babacar système bu bon bii ñu doon dundee ay tàppale ak lekk alalu askan wi képp. Mhm. ba noppi nag lekk alalu askan wi ba jeexal ñu bañ jeex tàkk ñu ne diir tawaay au lieu que boo lekkee suñu alal ba mu jeex xanaa nga la nga may ñu jàmm. Mhm. waaye nga lekk suñu alal ba mu jeex ba noppi bëgg a jël ay arme di jàkkaarloo ngeen di tiire loolu lu ko gën a ñaaw. dëgg la léegi nag ku mel noonu bu ñu gisee kilifa goo mën a doon. ñu la nit ñi am na solo bu la nit ñi meree yaa ko teg sa bopp tey sa jàngat ci réew mi. réew mi kay fi mu ne suñu Babacar xanaa amatul jàngat di xaar résultat. toog di xaar. ndax gars yi li ñu teg. baax na ba noppi te day gën a baax. maam ci wax daal baax na. jëf jëf ji daal moo des. waaw tàmbali nañoo liggéey. Hmm. biñ leen falee léegi sëñ Babacar ma dugg un mois te xoolal. Hmm, dëgg la waxuma la dara waaye jàmm ji ngay am boo tëddee sa kër rek sëñ Babacar bu fi liggéey Bassirou Diomaye Faye yemam baax na ba noppi. macha allah. yàlla seet nag te moom la ñëpp maase wax nag ne boo toogee sa biir néeg sax day mel ni da yëg benn jàmm. Mhm. boo xam ne sëñ Babacar comme climat féex boo xam ne jégg na day. mosoo ko am. mosoo ko am ci àdduna. macha allah ba ci yéen ñii yor si bi. Mhm. liberté bi ngeen am nii. sëñ mhm. Babacar néew foofu. dëgg la. te journaliste. dañ ko a Mm-hmm. waaye lan moo doon lay journaliste war a am xibaar génne ko nga ne ko boo fi génnee ñu. ñu tëj la ci bi pour la. suñ dernière question mooy parfois nga gis koo xam te nii comme càq yi nga gis koo xam day génn këram rek war a uti dépense 2000 francs 3000 ñu jàpp ko laaj loolu amoon na fi ndax loolu état bi war na ci taxaw jamono ji. mi ngi jeex te waxagu ci de. Uh-huh. te mi ngi jeex. mi ngi jeex ndax man Tuubaa gi mu dëkk. Uh-huh. xamoon naa ñu ko doon def <laughs> Uh-huh. xanaa xamoon ne gis nga de. Mm-hmm. saxaar la. saxaar bu bopp bi jubee lépp a jub. dëgg la. gis nga keroog bi régime bu bon bii wàccee. Mm-hmm. régime bu baax bii ñëw. Mm-hmm. bi ñu xam ne ñi toog nii lañ mel la. xanaa xamoon ne fi sensé kenn ku ne yaa réglé sa bopp. fexe ba defal sa jëmm ba mu correct. te kenn du excès bu ceeb. macha allah moo tax man la lu bëree ngi te ñiy daw ci télé bi xam nañ ne mbir yaa ngi macha allah te moo na dugguñ ci ñoom de. waaye léegi bu duggee ci ñoom ba wax ak ñoom ba noppi lu mu war a mel. macha allah lan ngay tàggatoo. santaat yàlla bu baax seen Babacar. Mhm. julli ci yonte bi tey wax ne. Mhm. man de li may tàggatoo mooy damay njëkk a ñaan damaan. Mhm. ci Bassirou Diomaye Faye Ousmane Sonko mii. na ci bale bi. ngal nañ ñu dimbale te yàlla tax. histoire Ousmane Sonko nañ xool ministre wala bindkat buñ ko jox mu bind ko. Ousmane Sonko Macky Sall seen histoire benn nañ ñu ko bindal. mu doon comme histoire ay livre ñu bàyyi ko fi. Mhm. buñ ko mënta bind nañ ñu ko defal ay film ñu koy seetaan. ñu koy seetaan. ndax ku jëm ci yàlla sax am nga loo ciy mën nga cee jàngee xam-xam bu doy sëkk. ëpp naa ëpp na ëpp nañ kaa fàtte daal. wallaahi ma xasee ëpp naa fàtte ndax comme histoire bi woon ci Firawna ak Moussa. Mhm. daanaka moo répété wu te gis naa yu bari yu ci xew sax te xewutoon ci diggante Moussa ak Firawna. Mhm. moo tax man histoire la boo xam ne ngal nañu dimbale. dana am solo lool ci réew mi nañ ko bind bàyyi fi. Mm-hmm. wax ci début ba fay Macky Sall ak Sonko tàmbalee ba fi mu egsi. Mm-hmm. ba li leen yàlla jox tey. buñ ko mënta bind nañ ñu ko defal ay film ñu bàyyi ko fi. Mm-hmm. ëllëg suñuy sët bu ñu ñëwee. ñu xamal leen réew mi kat tolloon na fii seen maam yi xoolal kii fi mu jaar kii. doon ko néewal doole lii la nii la meloon daa dëggoon lii lañ doon bañ nangam nangam fii lañ jaar. bis kat génn na fii toj nañ fi otoom mas nañ tëj nañ ko fii. rey am na solo macha allah yéen a ko déggandoo mu nekk loo xam te ni gëm-gëmam la ba bëggam la te it aussi askan bi dina leen jëriñ lool ñu ngi koy jaajëfal bu baax di baax di am contentement ci borom xam-xam mu mel ni moom képp koo xam soxla nga ko mën nga ko woon numéro yi daw ci suuf jërë ngeen jëf.